jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne barki démb jëlal nañ leen ki nga xamante ne mooy suñu papa mbay Guèye mu wax lu bari loo xamante ni képp kuy mag boo ko dégloo rek dina la rappeler lu bari ci làmb tey nag dalal nañ keneen koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy suñu papa Manga 2 nga xamante ni def na loo xamante ni jaloore la ci làmb kenn du ko fàtte. nee nañ sax ba li mu def ci làmb jafe na nga gis xale bu ko ci def wala boog gisaguñu xale boo xamante ni def na li mu def ci làmb moom lañ dalal tey ngir waxtaan ak moom ci jëmmam ak làmb ak lépp loo xamante ni dafa yokk xale yi nga xamante ni ñu ngi ci làmb moo tax wasaare làmb seet si ko ngir ñu waxtaan moom. Père nga maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant déplacement bi ngeen def tey pour seet si ma. am ci mbégte lool. mais balaa may sori damay nuyu suma kilifa yooyu boo xam ne tudd nga ci kenn muy El Hadj Mbaye Guèye Double boo xam ne suma xarit la suma nijaay la suma yëpp la assurance Malick Diop Cité Fathior eh, Souleymane Diaw suñu mag yooyu yëpp su ma toogee di lim fii dinaa jum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant parce que gis naa fu ñu yóbbu làmb ñoom Pape Touré yëpp. ñoom faga faga 2 bu faas ñooyu yëpp gis naa taxaw bu ñu taxaw ànd jàppale làmb jëmmi Manga 2 père waral turu Manga 2 Manga xam nga dama amoon benn nijaay boo xam ne da doon bëri Kaolack ci arène foofu mais am na arène bi ñu ko tuddee sax Manga Sia donc bi ma commencé di bëri lutte traditionnelle ci mbappat yi suñu kilifa yi na ngay déggal turu kos ko dafa teel a gaañu. te man ak doomam ñoo maase. mu ne da jël tur boobu déclarer waaj tur boobu. loolu moo indi Manga 2. nga dugg ci làmb ñu bari xam nañ ni carrière bi sëñ Bass wax na ko fi nga jaar ci làmb lépp ak jaloore yi nga xamante ne def nga ko ci làmb lan moo la ci gën a neex ci li nga def yëpp ci làmb. lu ma def lépp ci làmb sant yàlla. parce que nit su duggee ci yëf ba pare yàlla di ko jox ndam di ko jox ay nattu yaakaar naa ne loolu sant yàlla la ba ma génn ci ci jàmm ak salaam kon maa ngi rafet loolu sant ci yàlla bu baax a baax. xam ne am na ay combat yoo xam ne neex na ma lool am na ay combat yoo xam ne déception laa ci am. parce que yaar yaakaar moo ko woon noonu. di la wax suma diggante ak ndam si yàlla Alioune Seye lu doyoon waar ci man la parce que suma adversaire la woon. daan ma te daanu ma ko <laughs> match nul ak moom. donc loolu nekkoon na loo xam ne aussi nekkoon na lu ma marqué ci làmb waaw. kon da njëkk a mu daan la ngeen bëriwaat match nul. waaw dañu bëri bi pare mu daan ñu bëriwaat match nul. Mm. waaw. doon loo xamante ni kon bokk na ci li la metti mais làmb lan moo la lan moo la ci gën a neex ba ndam nga gën a am ci sa ndam ndam yi ma am ci ñu mu neex ma bëri na lool du benn ndam rek parce que soo seetee suma revanche ak Mor ndam bu ma neex la parce que position bi waa Fass taxawoon ci làmb ji la ñëwoon am yaakaar ne fu ma nga doy jaar nañ ko dante yàlla def ma door ko mu daanu kon loolu lu rëy la ci man mbëgte la woon ci man bi may tënk Double Less aussi temps boobu dama toog ak suma kilifa mu ne ma xanaa da ngay xaru mën loo bëri ak Double Less moo la ëpp galaaj moo la ëpp doole ma ñëw ci stade match nul ak moom bëriwaat ak moom daan ko kon loolu mbégte la ci man parce que li àdduna bi yëpp foogoon ne mënuloo fa am ndam mënuloo fa réussir nga réussir foofu yaakaar naa ne ndam la mm-hmm. rawatina nag bu may jël le drapeau du roi des arènes moo tax ma wax la ne fu ma am ay mbégte bari na ci Mor Fadam dañu bëri première édition ñu match nul aussitôt le CNP reprendra combat bi yàlla jox ma ma daan ko. kon nag loolu ndam bu rëy la ci lañ ma nommé le roi des arènes. kon roi des arènes bi per Mor Fadam moo ko njëkk doon ci làmb. Mor Fadam mu sukkandeek ñu man ak ñoom ñoo compétir. Mm. ndem si yàlla Mor Fadam. Mm. ba egg si ci final bi final la ñu doon def. ñu bëri match ñu bëriwaat ma daan ko waaw. loolu la nga jël nga jël roi des arènes téye ko ba ban moment nga ñàkk titre bi. non titre bi mosuma ko ñàkk. daanu na mais daanu yu ma daanu nekkuloon drapeau bi la ñu tegoon. xam nga amoon naa droit bëri sans drapeau bi. mais combat yu ma bëri ci drapeau bi yëpp dama daan te à l'heure actuelle bi ma wax ak yow dama génn yóbbaale drapeau bi. malgré am na ñoo xam ne daan man ma ci diggante bi mais nekkuloon drapeau bi la ñu tegoon. parce que tubaabu joor bi may daan drapeau madame Elisabeth la woon. ainsi de suite. yaa ngi yoroon maa ngi yoroon titre bi mais teguloon titre bi titre bi dafa amoon toujours enjeu boo xam ne euh, CNP moo ko doon indi wax ne ñeenti nit ci da ngay jël ci kenn tegal la ko combat bi. donc au moins dinga nga bëri ci trois adversaires yooyu ñu la indi il faut nga tànn kenn bëri ak moom. waaw bokkul nag ak benn promoteur ñëw tëgg bugg sa combat comme sama combat ak Tyson benn promoteur ñëw bugg ko tëgg ko bokkul mm. ñu ci bari ci làmb dañoo jàpp ne sa diggante ak Mouhamed Ndao Tyson bi mu la daanee daa jël roi des arènes bi. non non no non bi ma daanee taxul loolu mu jël roi des arènes bi mais daan nañ ma boo xam ne sportivement laa ko jëlee nekk suma rak bu baax nekk suma rak bu ma déggal nag ma jox ko cër waaw. kon CNG de lutte bi kon mën naa ni Père Manga rek la ñu reconnaître ci koo xamante ne mooy roi des arènes léegi noo gisee roi wu démb ak roi wu tey tey moom dafa mel ni man sax suma ma bëree ki yor roi des arènes su ma ko daanee maay roi. xam nga loo gis rek. jamono li dox. ndax suñu doom yi suñu jarbaate li ñu am tey amuñ ko woon. donc loo gis rek innovation la. donc bu nag innovation su neexee na ñëwee nag ak làmb ñu mu doxee. ñu jàpp ko noonu joxe ko cër yooyu. donc ñu bari jaar nañ ci roi de arènes nekk nañu ay roi des arènes. waaw ci seen jamono la loolu suñu jamono la woon beneen jamono ñëw ñu am stratégie ne stratégie ñu defee ko noonu. Hmm. waaw seen jamono bu njëkk ak jamonoy xale yi kan moo dàq bëre. Euh, dàq bëre dina xaw a jafe parce que am na ay xale yu xarañ boo xam ne mën nañu wax ne moo ñu dàq bëri pour pourquoi moo wax ne mën nañu dàq bëri moo ñu gën a xarañ ñoo ñu ëpp souplesse moo ñu ëpp vivacité. donc euh, mais euh, làmb cosaan ñu ñoo leen ko ëpp. Mm-hmm. waaw. cosaan cosaan mooy. cosaan moo xam nga làmb ji léegi am na folklore bi ñu ci def amuloon bu njëkk ba. Mm-hmm. bu njëkk ba da nga ñëwoon nekk typiquement làmb nekk typiquement mystique boo xam ne loon folklore parce que am na ay mystique yoo xam ne mën nañu wax léegi folklore la ko mm-hmm. waaw loolu seeni jamono ak léegi xale yi kan moo ci gën a gëm mystique xale yi léegi wala seen jamono mystique amoon na comme ni mu amee léegi. non mystique amoon na mais taxuloon mu feeñ noonu trop comme nu mu feeñee ci mystique xale yi parce que indi cent bouteilles daawuloon feeñ ci ñun cent bouteilles yooyu. Mm-hmm. waaw mais amoon na ay mystique. mystique yu garaaw comme xale yi ni ñu amee ay mystique mais seen mystique yu bari am na loo xam ne folklore la. xale yi léegi da ngay dégg ñu ne la combat bi li ma ci def ci mystique man na trente million wala quarante millions say jamono daan nga ci def loolu. xanaa balaa ngay def loolu nga am ko trente millions ou bien quarante millions balaa ngay def loolu mystique kay nga mun ko am mais loo ne comme par exemple suñu jamono ay un million deux millions cinq millions nga doon bëri donc mun loo def trente millions ci mystique foo koy jëlee. mais sa jamono boo boo boo fayeeku woon cinq millions di nga jël trois million yi def ko ci mystique. xalaatuma ko ci àdduna trois millions ci mystique dama ko def ci combat boo xam ne ay cinq millions la lay fay def trois millions soo defee trois million mystique bi lan ngay bëgg di lekk lan ngay jox sa àndandoo donc c'est pas possible. Mm. jàpp nga ni kon li mbëri naan trente millions trente cinq millions quarante millions xel nangu na ko ni def nañ ko ci lamb. non ku nekk dafa xam ni muy réagir mun nañ ko def ça dépend. parce que peut-être mun nga am sa supporter mu may la dara nekkul sëriñ bi maa la ko fayal. ku nekk lu muy def dañ koy bàyyi ak nu mu fonctionner. mais man maa nga mosuma dugal loolu ci sëriñ. te daaw naa am ay sëriñ yu ma gëm. xale yi démb. nga ne gis nga ci xale yoo xamante ne mën nañ bëre. non xale yi tey gis naa xale yu xarañ ci bëre mu mun bëre. comme am na ay mag yoo xam ne comme par exemple am na xale yu mu mun ci bëre. comme ay ay ma ay xale yi loo xam ne d'aujourd'hui ñoo mënoon mag yooyu ci bëri. waaw. xale nga gis ci xale yi koo xamante ni boo ko gisee rek gis jëmmi Manga 2 ci xeex bi ci mën a bëre bi ci fonk bis ci mën bis. non xam nga gis xale ku mel comme Manga 2 day jafe pour ma wax ne kii la mais xam naa ne am na ay xale yoo xam ne am nañu vivacité boobu Manga 2 amoon parce que man dima doon déplacé comme en. poids léger et j'étais en poids lourd donc yooyu yëpp am na ay xale yoo xam ne ñu ngi koy def parce que soo gisee par exemple Modou Lo Modou Lo c'est pas en poids lourd te gis nga poids lourd yu muy bëre yëpp ak action yu muy def euh, Balla Gaye numéro 2 gis ngeen vivacité bi mu am rapidité bi mu am donc am na ay xale yoo xam ne ñu ngi fi xarañ ci bële lool mun bëre ñoo xam ne dàqoon mbër yu mag yi bëre foofu ñu ngi fi. am na ñoo xam ne aussi mbër yu mag yi am na ñu dàq bëre foofu ci bëre donc léegi ci xale yi donc ku nekk ak wërsëgam la ku nekk ak jamonoom la loolu laa la mën a wax. père ma say jamono waaye gis naa ci mbër moo xamante ni mag ñu bari nee nañ bu bu simee ko jëmmi màng rek la ñuy gis muy Gris bu Fass. waa Gris bu Fass am na ñu ma ko wax mais am na fu mu desee ci Manga 2. waaw peut-être euh, yaram bi parce que Manga 2 amoon na vivacité de rapidité. mais je pense que Gris amagul loolu. waaw xale boo xam ne aussi mun naa am avenir ci làmb ji. suñ ko jàppale bu baax mun naa am avenir ci làmb ji. Mm. waaw. nga yor yor écurie bu ñuy dégg école de lutte Père Manga écurie bu anam mu ngi dox ba léegi. oui écurie bi mu ngi dox ba léegi parce que déjà même Dame seen ci écurie bi la bokk. te ñu ngi koy waajal komba Mbartin numéro 2 am na combat déjà boo xam ne le neuf la koy bëre. donc xale yi ñu ngi kii. ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. ku ci mel ni Papis général sa écurie la nekkoon. waaw ku mel comme Papis général ci écurie bi la nekkoon. mais giñ nañ ko gis peut-être soit dafa bàyyi làmb ou bien bàyyiwul làmba mënuma ci lu wax lu sori. parce que soo xam amee ay xale ñuy entraîner gisatuloo kooku muy entraîner mënuloo wax lu sori ci moom. Mm-hmm. mais xale bu xarañ la woon bu amoon bokk avenir ci làmb ji parce que amoon na technique mënoon na bëri. mu bëre benn combat am ci defet moo Quench ba tey gisuñu ko ci làmb dafa mel ni daa découragé wala daa bàyyi. non ça dépend ci option bi mu mu mu jël rek xam nga daanu mënul tax nga bàyyi bëri ñun ñëpp bëri nañu daanu loolu mënul tax nga bàyyi bëri mais nit bi moo dem gën a xam boppam. su demee bi xam boppam su fekkee ne dafa jël décision pour bàyyi làmb kenn mënu ci dara waaw. père ñu bëgg a ñëwaat ci yaw tuuti. sa combat yaag Mouhamed Ndao Tyson bi ngay bëre combat bi am na fu mu tolloon ba ngay bëre ñu ci bëri neewoon nañ boo ko daanee dangay bàyyi bëre mu daan la nga jaare fa bàyyi bëre lan la daf ko doonoon loo xam ne donc ko wàcc défaite bi nga am ndam nga am défaite da ngay bàyyi bëre. non euh, juum. ba ma bëree ak Mouhamed Ndao Tyson taxul ma bàyyi bëre. Tyson def ma daal ma bëriwaat ak ndem si yàlla tubaabu joor ma daan ko bàyyi bëri. dem mm. ak génne ak ndam ci arène bi waaw lu ma tubaabu joor ci lay bàyyi làmb mm, làmb waaw kon jot ngaa am ndam ci tafa Tyson bi mu amee ndam sa kaw jot ngaa am ndam ci kaw père tubaabu joor waaw mu door a bàyyi làmb mm. waaw mais bàyyi nga làmb ba tey waaye sa loxo génnut ci làmb ndax ba tey yaa ngi tëgg ay journée di tëggal ay mbër xale yi di ci am seen wërsëg lan moo la dugal ci loolu waaw loolu moo ma war parce que bu ma nekkee Manga 2 même ba am coow dëgg dama doon def lutte traditionnelle fu ma dëkk. muy Joal Fadiouth di organiser ay fête ci làmb foofu kon su ma demee ba bàyyi làmb war naa mun a continuer lutte traditionnelle bi di jàppale xale yi. la preuve étant donné barke démb rek le 26 laa jógee film la def foofu mise 2 millions en même temps def ko ci thème de sensibilisation euh, de l'immigration clandestine et d'emploi de jeunes pour xale yi ñu jàppale leen ci liggéey. jàppale leen waxtaan ak ñoom ñu bàyyi voyage clandestine bu ñuy def donc je pense que loolu moom ma war lu ma war la donc te am na ñoo xam ne kontaan nañu ci ñu gagné trophée boobu presque lu tuuti tuuti am na ci neuf cent mille keneen ki am six cent cinquante mille so donc mun nañu déparé ci loolu def ay activités yoo xam ne état bi def leen di jàppale ou bien ONG bi dina leen di jàppale mm-hmm. waaw le 9 février bi ci arène Adrien Senghor aussi dinaa defaat benn gala boo xam ne foofu lañ koy defee teg mise un million pour xale yi donc il faut ñu jàppale xale yi il faut ñu dëggal leen ku nekk ku mënul am combat soo ñëwee foofu di nga am loo gagné nga yóbbu sa kër waaw. ci lutte traditionnelle bi daan nañ la gis ci lutte avec frappe bi mais ba tey dafa mel ni waxagoo ci lutte avec frappe bi da teggi sa tànk wala da ngay continuer ci lutte traditionnelle. non ci yëpp laay def ci yëpp laay def. su ma amee occasion pour organiser loo xam ne comme par exemple lutte avec frappe la dinaa ko def. mais dans un premier temps lutte traditionnelle la organiser gum film la ñëwaat le 9 aux arènes Adrien Senghor pour organiser waat benn gala lutte traditionnelle sans frappe. Mm. oui. sa relation yaag mbëru démb yi nu mu mel. non mbëri nga suñu relation relation yu rafet lañu parce que am na ay mbaru démb les anciennes gloires moo la cité léegi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay yoo xam ne am na cër bu ma jox am naa cër bu ma lay jox aussi. oui. ban conseil ngay jox xale yi ndax bu bu démb ñaawoon tey du rafet tey yaa mbaru démb yi buñ leen gisee gis naa ci bu ngeen àndee lu bare bare gis naa leen ngeen doon famille doon ñoo xamante ne da ngeen bëggante seen biir koo ci gis sa bopp moroom rek gis nga mel ni gis nga sa bopp tey te xale yi nekk nañ ñoo xamante ni bu doon da ngeen a waxante lu ñaaw wala ngeen waxante ko bu ëllëgee bu ngeen gisantee seen gisante du rafet. ban message wax léegi rek am na ay tur yu ma la tudd sànq xoolal man ak euh, Ndiouga Dia nu ñu mel dañuy nuroo comme ñu ñoo nekk maas fu ñu tasee foo ree xoolal classe d'âge yi nu mu dëggalee euh, nu mu amee distance man ak Pape Touré euh, ma wax la ne Ali Mohamed Ali. lu ñu deful ci làmb ji amul bëri na ñu mot trois fois mun naa wax ne combat yu gën a métti suma diggante ak moom ci la ci la nekk ci làmb ji. te ñu ne nekk ay xarit léegi def comme ñu ñoo bokk ndey ak baay donc loolu yëpp c'est des leçons xale yi xam ne loo gis rek jaar-jaar la jaar-jaar bi nañ ko rafetal xam na ne si biir yéen a fi nekk te réew mi ñu ñoo ko moomal suñu bopp. kenn du jógee fale defaral ñu ko ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp donc le leçon yooyu message yooyu la ñu lancé xale yi toujours pour ñu nekk benn xool seen avenir jàppale seen rak nekk benn. ñu ñu jékki-jékki ci làmb dégg ni promoteurs yi. dafa am ñoo xamante ni seen moyen demewul noonu sponsor yi ñëwuñu làmb ji dafa metti koo ci wax mu ne la làmb dafa metti ñii ne communication bee ko rey wala violence bi la wala promoteur yi la lan nga xalaat ni moo war a mën a delloowaat làmb fa mu nekkoon. Eh, delluwaat làmb fu mu nekkoon <clears throat> mooy loo gis rek day avancé loo gis day am jamono loo gis bidéew loo eh, nit bi suy def lu mu mun su tëddee nelaw. Eh, loolu rek. moom la ñu war a def. làmb nit ci ñu bugg a organiser ñu ngi organiser ñu am moyen ñu ngi organiser ñu amul moyen aussi ñu ngi jàmm pour organiser parce que lu privé la. ku nekk looy gagné yow yaa ko yóbbul sa bopp yow yaa xam est-ce que dinga nga gagné ou bien doo gagné donc di nga mën moom ngay def. waa ñu ni beneen innovation ci bu bees ci làmb muy pay-per-view noo ko gisee. ah nu ma ko gisee mënuma ci wax dara parce que defaguma ko. donc ñu ko def toogaguma ak ñoom ñu wax ma ne résultat bi lii la donc mënuma ci aventure yu di ci wax. Euh, membre jàpp nañ ni ñu bari nee nañu Père Manga li nga am. ci raaye am ko ci ci ndam ci réew mi defal Sénégal présenté Sénégal fu ne ci réew mi ba xam Père pare na pour jël CNG de lutte bi doon président. non man amul lu may xëccoo ci àdduna man bi may doon président des anciennes gloires de la lutte dañ may jël si. jël si lu mot ñeenti yoon ay kilifa ñoo ñëwoon jël si ma toog ci suma salon. ma ne ko nañu dem assemblée générale su fekkee ne assemblée opté na keneen su gisee bugg jël ñu jox ko noonu laa dem ñu def assemblée générale amul benn doomi adama bu yëkkati yoon loxo ne bugg na nekk ou bien contre ma donc euh, loolu ça fait partie de mes principe ak suma éducation. ku mun te doon ganaar su yore CNG sax. su ma woowee ne mbaa nga jàppale ma ci fànn bi ma jàppale ko. waaw ci lu ma mun. ñu ñëw ci question bi mujj mooy euh, Père Manga boo daan dugg si ci làmb dañuy gis aada cosaan xam buñ la xoolee rek xam ni Père Manga mi séeréer piir la làmb ji léegi loolu dafa mel ni dafa rafle buñ gisaan Garga mboose mu dugg si ci làmb ñu ne ah kii de Manga de bu bu bu sotti la lan ngay wax ci xale yi. Euh, kontaan lool. parce que su ma gisee xale boo xam ne day dellu cosaan di fecc fecc cosaan di indi yëfi cosaan dama ci bëgg lool parce que dama gëm loolu dama gëm cosaan dama gëm tradition donc je pense que ñëpp di fecc fecc séeréer aussi euh, ndam la ci ñun mais am na fu mu yàq aussi parce que bu njëkk ba da nga doon gis joolaay suñu ñëw di nga xam ne joolaay ñu ngi ñëw jël garab yi tout et consort dugg si ak loolu euh, olof yi suñu doon ñëw ak seen fukki sër yi nga xam ne mbëru olof moo doon egg si séeréer yi suñu sànnee seen laar bi nga gis loolu donc tukulóor yi la même chose donc valeur yooyu lañu ñu war a dellu siwaat valeur yooyu la ñu war a continuer incarné ko ci xale yi ba ñu xale yi dellu siwaat ci loolu waaw. ñu lay jaajëfal père. maa ngi leen di gërëm di leen sant. di leen wax ne nag suma làmb dimanche bu naa ngeen teew foofu le neuf. le 9 la ci arène Adrien Senghor di woo séeréer yi yëpp di woo amateur yi yëpp di olofi olof yi joolaa tukulóor ku nekk amateur làmb képp ku nekkul amateur làmb sax war nga mun a ñëw ci bés boobu parce que benn innovation bésu la bésu askan bi la donc je pense que maa ngi leen di woo ñoom ñëpp le 9 ngeen ñëw arène Adrien Senghor seetaan si làmb ji mbër yi aussi ñu teel a ñëw ci làmb ji inscrire wu ñu xam ne ñoom la ñu la je vous remercie. lan nga bëggoon wax loo xamante ni sama xel daju ci te bëggoon nga koo wax te waxoo ko. non lu ma bëggoon a wax yëpp yaakaar naa wax naa ko parce que je pense que làmb ji ni muy def léegi yaakaar nañ ne lu bi ñu ngi dox. Mm-hmm. important pour moi. Mm-hmm. remercie jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen suñu papa Manga 2 li mu wax ci làmb lépp bokk na ci luy defar génn na ci làmb waaye loxoom génnut ci làmb takkatul ngemb li waaye mu ngi dimbali xale yi di leen jàppale kon ku mel noonu ci réew bu fi nekkee képp koo xamante ni war na ko mën a jàppale na ko jàppale ngir xale yëpp bi bëree olof daf ne doomu ñaay kenn du ko ñaanal rëy danga koy ñaanal gudd fan ndax bu guddee fan rek rëy. am na foo xam ne duma la dog. moom laa waroon parce que famille lamb temps yi dafa am ay nakar Mbaye Dia Diop génn na àdduna te grand champion la woon bokk ci suñu kuréel gis nga temps yi aussi jabaru Aziz Ndiaye boo xam ne amul lu mu deful ci làmb Aziz moom ci boppam génne àdduna ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla xare ko arjana kon am na ay décès yu bëri yoo xam ne jaar nañu fi waa làmb ñoo ko moom képp ku nekk nitu làmb képp ku nekkul nitu laam nekk sénégalais sénégalaise ñu ngi leen di jaay dëj yooyu yëpp jaar mm. du sec xam ngeen du sac su yëkkatee baat bi sa xol day daw kon yaakaar naa ne ñooñu yëpp ñu ngi leen di jàlle mm. jërëjëf kon mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Père Manga wax ñu ngi leen di tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.